الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وكجلدني جناب سنتي سنبرم سبحانه وتعالى ñoo ngi julli di salmal ci ar rasul muhammad sallallahu alayhi wa wa sahbi di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sutura di ko ñaanal mboolemi saxaabam ak ku topp seen njub ba ila yawmi qiyaamati yawmi diin tel siwaat nañu ak ci suñu darsu koor rawatina darsu bii di allamani ramadaan muy weeru koor jàngal na ma weeru koor xamal na doon suñu jotaayu fukkeel ak ñaar muy jotaayu numéro 12 weeru koor xamal na al ubudiya ann al ubudiyata hiya filu ma yarda rabbi xatta wa in kaana muxaalifan lil hawa wa ma tuxibbuhu annafsu fannafsu tamiilu ila taacati washaraab wa qad taraktuhu fi nahaari ramadaan ibtigaa mardaatillaah weeru koor jàngal na ma ne lii di ak ubudiyatu mooy nangoo nekk ak jaam ci sa kanam boroom nangoo nekk jaamu bi yàlla subhaanahu wa taala weeru koor xamal ne ma ne mooy def li nga xam ne yàlla dala ko sant te gërëm ko donte ne mbir booba day dafa wuute ak bànneexu bakkan ak la bakkan ba bëgg ndax bakkan dey dafa jeng jëm ci lekk ak naan te lekk ak naan boobu dey bàyyi naa ko ci bëccëgu weeru koor ngir sàkku sama ngërmaande boroom loolu lu mu ñuy jàngal mooy ne kon jaamu yàlla du def ay ndigle dong waaye jaamu yàlla def ndigle la ak bàyyi ay tere lekk gi neex ci bakkan lool naan gii neex ci bakkan lool ak xeeti naanam nga mën koo bàyyi te yàlla rekk tax sàkku ci ngërmaande yàlla loolu weeru koor jàngale nañu ci ne kon ubudiyatu daal buñ ko waxee mooy nangoo nekk ak jaam mooy nga def li yàlla gërëm donte ne loolee dafay wuute dafay juyoo ak bànneexu bakkan bi ndax bakkan bi moom bànneex rekk la bëgg moo tax yàlla ne qad aflaha man zakkaaha texe na ki nga xamante ni dafa sellal bakkanam waaye wa qad xaaba man dassaaha perte na ki nga xamante ni dafa tilimal bakkan boobu kon weeru koor dinañu jàngal loolu doomu aadama bi dafa wala góorgóorlu ba doon ak jaam doomu aadama bi dafa wala góorgóorlu ba nangu ak ubudiya muy nangoo nekk jaam ci suufu boroomam tabaraka wa taala ndax boo nekkul jaamu yàlla rekk dangay nekk jaamu sa bakkan wala sa bànneexu bakkan su boobaa da ngay dem ba sa bànneexu bakkan mooy doon sab yàlla moo tax yàlla ne afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaa moo tax gisoo ki nga xam ne dafa jël bànneexu bakkanam muy yàllaam wa adallahu allahu ala ilmin wa xatama ala wa qalbi yàlla daal di koy sànk ci mu am xam-xam yàlla daal di kaste li nga xamante ni moom mooy xolam kaste déggam wa jaala ala basarihi gishawa yàlla def ay bëtam mu muuru ba du gis lu baax bu gis yoonu siraatal mustaqim yàlla ne ku mel nii fa man yahdihi min baadillah ana kan moo ko mën a jubal ginnaaw yàlla tabaraka wa taala looloo tax doomu bu nekkul jaamu yàlla rek doon jaamu cheytaane te cheytaane ku mu doon sa kilifa sa bakkan ku mu doon sa kilifa fa mu lay gurguri jëmee la fa mooy ca sawara wal iyaazu billah kon nañu nangoo nekk suñuy jaam mi boroom tabaraka wa ñu xam ne bu benn buur moom moo ñu moom keneen ku dul yàlla tabaraka wa moomuñu ay jaam lañ nekk ci suuf li nga xamante ni moom mooy nguuram kon bakkan boobu ni mu bëggee lekk ak naan lekk góog ak naan góog nga bàyyi ko ci bëccëg weeru koor ngir sàkku sa ngërmandey boroom loolu danañu xamal ni ak ubudiyatu mooy nangoo nekk ak jaamu yàlla mooy def lépp lu yàlla gërëm donte ne bakkan bi day wuute ak loolu nañ ne nangoo nekk ak jaam mooy maqaama bi gën a rëy ci maqaama yi nga xamante ni doomu aadama bi dina ko am ci boroomam ginnaaw bi nubuwatu jàllee muy maqaamab yenent dara féetewul kaw maqaamab ubudiyatu mooy nangoo nekk jaamu borom bi tabaraka wa taala ndaxte bu ñu delloo ci alquran dinañ fa fekk yenent bi sallallahu alayhi wa ci ay bërëb yu ama am solo suñu borom tabaraka wa taala ak njaam la ko tuddee waaye yenent boobu nangoo nekk jaamu boroomam moo tax ci ñaanuk sunna gu siiw ga mu doon wax naan allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik yow yàlla man dey sa doomu jaam sa jaam la waaye sa doomu jaam bu jigéen la ba ñaan nga jeex suñu boroom ci alquran tuddee na yenent bi ne kii dey sama jaam la subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa alladi baarakna xawlahu linuriyahu min ayatina suñu boroom nee na sell ñeel na buur bi nga xam ne moo rañaanee jaamam ba asra bi abdihi waxul asra bi nabiyihi yàlla moo rañaanee jaamam ba yëkkatee ko suuf yóbbu ko asamaan wala yóbbu ko baytul maqdis ca masjidal aqsa mu jiite fa yenent yi kon nga gis tolluwaay bu màgg boobu ak njaam la ko suñu borom tabaraka wa tuddee waaye bi muy wàccee ci moom alquran yàlla dafa ne wàccee naa ko ci sama jaam ba tabaraka alladi nazzala alfurqaan ala ak tedd nga ak kawe de ñeen buur bi nga xam ne moo wàccee alfurqaan ala abdihi ca jaamam ba waxul ala nabiyihi waaye ala abdihi ca jaamam ba waaye itam suñu boroom ba mu yónnee yenent bi mu taxaw di daawa di woote yàlla def ne wa annahu lamma qaama abdullahi yadcuuhu kaadu yakunuuna alayhi libada foofu itam nga gis ne ak ubudiyatu muy ak njaam la ko yàlla tuddee waaye itam suñu boroom waxaat ne alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab sant day ñeel na buur bi nga xamante ni moo wàccee ci li nga xamante ni moom mooy ndawam li di jaamam bi lii di téere bii di alquran kon nga gis ne doomu aadama bi nangoo nekk sa jaamu boroom rekk mooy li am solo kadalika yent yàlla ayuba loolu la ko yàlla taggee ne ni'mal abdu innahu awwaab aka baax sama jaam boobu di ayuba moom day ku daan dellu ci boroomam la subhaanahu wa ta'ala soo ko toppee du jeex noonu nga koy toppee yeneen yi kenn ku ci nekk suñu borom tabaaraka wa ta'ala tuddee na la ne yow ab jaam nga kon jullit bi na góorgóorlu ba nangoo nekk jaamu yàlla ndax bu nekkul jaamu yàlla rek dafay nekk jaamu bu cheytaan te ku nekk jaamu bu cheytaane kat xam nga cheytaane fa mu la jëmi moom mooy dalay yóbbu fa nga xamante ni moom mooy sawara kon nañu nangoo nekk ay jaami yàlla kenn moomuñu ku dul yàlla subhaanahu wa yàlla mooy suñu buur ñun ñëpp ay jaamam lañ ñun ñëpp ay dagam lañ nekk ci suufam kon lii bokk na ci mbir yi nga xamante ni weeru koor jàngal nañu ko ñun ñëpp nañu nangoo nekk suñu jaame boroom tabaraka wa daal te njaamu googu nag nangoo nekk njaamu googu nag du du la dul def la yi bàyyi tere yi def li yàlla gërëm bàyyi li mu mere donte ni loolee ngay def yàlla gërëm ko dafa wuuteeg bànneexu bakkan bi هذا وبالله توفيقي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة